jafe yi de moom mënees na leen cee wax sa tàmbalee ko ci ñetti fan wa ñeenti fan yii nga xam ne moom lañ dund. ñeenti fan yëpp ñun fii la ñuy fanaan ndax Aquatech comme ni la ko soxna si waxee rek diiru fukki at ci gannaaw ak juróom ñun forage bi yàlla dafa dogal kilifa yu baax yi ci ñaani ñaani mag ñu baax ñi ndax fii fii eh, fii forage bi nekk tey sëñ Modou Samba Mbacké bi nga xamante bii ne xaadimu rasul wan nañu gannaaw sëñ Modou Sambake dafa ne suñ borom wan na ko ak leer ci penk bi lim doon liggéey li sëñ Touba doon liggéeyal yàlla bàttali ko ci li mu ko war a taxawul ci ginnaawam gis na ak leer goo xam ne bii nii fi la ko war a mottalee liggéey boobu. yàlla dogal Aquatech régime bii ñëw Aquatech ñëw ne foqati forage bi ci sunuy loxo waxanteeg ñun ay waxanteeg ñun. defuñu ci dara dara dara dara lan waxante woon ñun dara lañ ci defut te ñun bi ñu yor suñu forage buñ masaan a machine bi masaan am jafe-jafe tey rek suba ñu daal di koy defar ndax boobu kilifa seen responsabilité dañ ko yor ba léegi ñoo yor seen responsabilité léegi nag comme ñoom dañ ko ñëw fàqati woon ko ne na ñoo koy yor gis nañ ci ñoom lu ñu doyut ñun itam ñu ñëw nag foqatiwaat ko ci seen i loxo bëgg nag akkuwaat ak mu dem te banoo ko suñu li ñu waxante woon moom ñoom danañ wax ne am na pourcentage boo xamante ni bii ne danañ ko def ak askan wi waxoon na ne dañuy liggéeyanteeg ñun ci ay ci GIE. bi ñëwee ba ba wax ba waxante mbooloo mi pour liggéeyanteeg ñoom ci GIE GIE boobu ñu waxante ñoom danoo dem ne dañ ko jàllale jàllale ko téye ko téye ko bi ñëwee waxoon dañ ne dañ ne sëy bi demul fenn woote nañ fi ay réunion ñu dem wuy ji waaye dañ ne bi demul fenn ñaari yoo xam ne bii ne ñi doon renouveler fayuñu leen ñi doon nekk ci liggéey bi fayuñu leen defuñu leen dara ginnaaw loolu am na nag te ñoom ñoo waxanteeg ñun seen te ñun te ñun li ñuy waxanteeg ñoom ñoo koy def te bu facture te bu facture ñëwee bu facture ñëwee man mii di wax ak yow indi leen ma facture boo xamante bi ko koo bokkal ak facture yu mbedd mi nekkuma fi sama waa kër woo ma waa ak waa teg ñëw bi ñëwee ñu woo ma téléphone ma ne leen facture bi ngeen ma jox da ngeen après euh, da ngeen ko boole ak facture mbedd mi mais xanaa nit bu ko jox facture facture mbedd day am facture boppam facture kër day am facture boppam ngeen jël ñaari facture yëpp cumulé ko ci benn facture man duma ko mën a fay. su ngeen ma indi leen facture boo xam ne maa ko moom nag sama kër la ma fay ko ngeen indi facture mbedd mi lam lak ñu fay ko boobaa léegi suma leen danoo bëgg ñu bàyyee ne suñu ndox suñu forage lañ soxla bëgg ñu may na ko gis nga barki démb danoo woote suñu réunion ñun dëkk yëpp waxtaan liste de présence baa ngi nii bu noppee dañuy dem jébbale ko ci ci ci ñi ñu fi nekkal ñu waxtaan fii ba jubóo ci kaw i kaddu. li ngeen jubóo lan la. leen jubóo mooy jël forage bi. d'accord ñoom ñu ànd ceeg yéen. waa Koité. waaw gisuñu leen déggaloo ñun ñoo moom as ñun ñoo moom forage bi nangu ko. ñun ñooy wax suñu bopp ñun ñun waa askan wi ñooy wax suñu bopp ne dañuy jël suñu forage waxtaan ci ba déggoo ci kaw i kaddu biñ ci déggoo ci kaw i kaddu ñu ne talaata nan daje fii bi ne talaata nan daje fii. am ñu rocc ci mbooloo mi wax ak ñoom bi ñu waxee ak ñoom ñoom ñu ñëw fi ci guddi dugg ci forage bi ànd ak seen conducteur lan foo def xaw ma ko dem ñibbi waxante woon na nag mbooloo mi nan fa dajee talaata ci suba bi ñu xëyee talaata dajee nañ fii ñëw toog fi toog déglu di di leen xaar. da ngeen a jàpp ne am lu lalu ci suuf ko danoo jàpp alors ah, lan mën a yaakaar ñu rocceeku dem seeti leen. loolu rek lan yaakaar de biñ ñëwee biñ ñëwee ñu ñu taxaw ñun di toog di leen xaar ban ñëw. biñ ñëwee xool ñu xombe ko ñu tëj ko ñoom ñun ñu jënd suñuy xomb yu bees parce que duñ yàq ñun wun wuñu ci yàq waaye dañoo jënd suñuy xomb yu bees ñëw xombewaat biñ xombewaatee ñoom biñ ñëwee ñun dañoo toog fii ba deux heures trois heures ñu dem waajali waxtu bi añ pour jël si waat biñ demee lan gis benn kàrkaat ci ñoom ak Aquatech ñu ñëw dajji xomb yi ñu fi defoon dajji biir forage bi dugg ci biir taal ko. bin ko taalee ñun danoo ñëw fekk ñu taal bin taalee ba pare ñu taal seen oto dem ne conducteur bi bàyyil machine bi mu tàkk demal ca dëkk ba na machine bi tàkk ba ko fay. loolu nag bi ma waxee wax na yëgal nañ ko kilifa gi yëgal nañ ko autorité yi ko war a yëg. li daajale fii de mooy ñun danoo am sunu forage forage bi ban koy am ñoo ko am ci turu suñu kilifa yu baax yi fi nekk ñu wutal na sunu forage. ban ko teg léegi ëpp na fukki at ak baa man na ko sëkk ñu di ci liggéey di ko saytu di ci liggéeyal suñu bopp bu wàppee ñu faj ko bu amee lam aaja woo ñu defal ko suñu bopp léegi nag yett yaar at ñu ñu paase Kowaateg di teg ci loxaam te bam ci tegee loxaam ak léegi ñoo ngi ci ay jafe-jafe rek coono taa jeex. dañuy dëgg coono yi taa jeex rek na léegi nag ñun liñ bëgg ñok suñu kilifa yu baax yi ñu àndal ah, waaw nga xam ne ñoom ñoo doon dox di wax ba indil ñu fi suñu forage bii dara moom kenn mësu cee dem teg jafe-jafe yi mooy moom facture yi seer na buñ nee dana ndikk tey bu ëllëgee du dikk moom daal jafe-jafe yi na ci teg yëpp tey ji mënu noo nekk di ko lim ndax wax ji danoo bett waaye sonn nañ ba fa coono yam sonn nañ ko léegi daal ñun leen soxla ñu jox na sunu forage ndax ñoo ko yàllaa na ko joxoon ak sunu kilifa yu baax yu nekkal te mën nañ koo saytu mën nañ koo liggéey. na dem na dem dafa yem na teg mooy bam dikkee daanaka forage bi boo tàkkee tey bu subaa du tàkk facture yi seer na ñu ne na ci defal facture yoo xam ne yii daanaka du dara. man mii de wax ak yéen barki de fay naa booru coupure yoo xamante ne bii ne amul yee amul amul ñaari weer amul weer ñu dikk na nu la ci boori coupure ma fay boolu coupure bu nekk junni ak téeméer ak juróom fukk sama ñaari ba sama ñaari bi na ca saakar ñaari boori coupure yi di ñaari junni ak ñetti téeméer ñu ànd ak booy. taxawuma ca saa wi tig sos tàndar ma fay ko. ci ci ci lu dul yoon. daal ay ñuy fay seer na teg nañu ay problème suñ borom kër yi mënuñoo am dara lu ñu am ñu lekk ko ci lu dul dara mënatuñ caa dëkk mënatuñ caa nekk suñ borom kër yi bay xëyuñu dem fenn bay lañ yaakaar duñ def nag luñ bay ba pare yemale ko ci am ndox. fuñ toll teg leen ay problème yoo xam ne mënuñoo dem mënuñoo dikk fuñ toll ñu ngi xalaat ndox mi guddeeg bëccëg ñun ñi seen ay ji seen i jigéen mënuñoo sangu seet mënuñoo naan mandi ndax ku ne ci dangay konomi sam ndox daanaka dikk si woo ngay kii ndax da jafe-jafe yooyu nañ ñu dimbale ngir yàlla ku waa teg nañ ñu baax bàyyee ñu suñ alal ji bàyyee kook suñu kilifa yi suñ maaraa yu baax yi nekk suñ dëkk bii di liggéeyal yàlla ba suñ jonni yàlla tey jii ñu boole ñoog suñ ji ñu nekk ci guddeeg bëccëg nit ñu bàyyeeg moom ku waa teg sonal suñ borom kër yi ñoo dem mën ñoo dikk naan dañ koy konomi sangu dañ koy konomi duñ sang suñuy fas sax wala ñu sang ñu wëgg suñuy fas wëgg yu yu baax nañu dimbale ngir yàlla ko waa teg nañ ñu dimbale te bàyyi ñoo suñu alal ji suñ kilifa yu baax yi ñoo ñu ko liggéeyal. fu xam nañ fa jaman man soxna Sarr laa tudd.